bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli la hawla wala quwwata illa billahi alil azim ginnaaw mu ngi sant yàlla julli ci sidina Muhammad ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu defuñu jaami am na jaami alaxira suturaal na suturaal alaxira xéwul àdduna xéwul àllaaxira comme ñaan bi nga xam ni moom la ñu digal ñu koy ñaane muy rabbana atina fi dunya xasanatan waaye nag fil axirati xasanatan yàlla borom subhaanahu wa taala ñoo lay ñaan fii ci àdduna sutura wér jàmm xéewal jéggal ñu suñu bàkkaar waaye nag fil axirati bu dee kon ñu sant ko di ko ñaan rek loolu yàlla nañ ko yàlla defal defal ko mbooleem julli ci ba suuf ñu julli ci Seydina Muhammad ñi nga xam ni mooy ashraful xalqi di sangi sangi di yaakaari jaam yi yàlla xooloo ñu ko yàlla bëggaloo ñu ko ni boo ko toppee man yàlla ma bëgg leen qul in kuntum tuhibbuuna Allaha fattabi'uuni yuhbibkumu Allahu wa yaghfir lakum zunuubakum waaye nag bu ngeen bëggee ma sopp leen jéggal leen seen bàkkaar toppal leen ma Muhammad kon di julli ci di ñaan yàlla borom subhanahu wa mu yokk suñu cofeel ci moom yokk suñu bëgg-bëgg ci moom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa diine yi di jiital Sëriñ Babacar Si Mansour atallahu anhu wa ayyadahu di ko ñaanal yal na yàlla dolli guddal fanam yal na yàlla dolli sàmm ko yal na yàlla dolli wattu ko niseur bi nga xam ni moom la am ci ci société bi ci àdduna bi yal na yàlla mottali ko di liggéey baayam di liggéey maamam waaye di liggéeyu sëriñam waaye di liggéey yanantaam di liggéey borom subhanahu wa taala moom mel ni ko la tuddee ñu ngi xalifa Ababacar Sy mi nga xam ni fa tabaraka allahu mooy di dëpp gi kan mooy sa baay Alaaji Mansour bi nga xam ni mosul jugee ci peggu Cheikh Seydil Hadj Malick kuy ca moom Cheikh Seydil Hadj Malick yaakaar naa ne garab foofu la mu ne te xub bu dul su xub kon fa tabarakallahu yàlla yàlla doon la taxaw doy la sàmm doy la dëgëral mooy la ñu ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou atala umruhu wa ayyadahu nasara moom it bu mu sumb ci société bi ci réew àddina bi gis nañ ko yal na yàlla doon di taxaw yal na yàlla doon di sàmm ko yal na yàlla doon di wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko tarbiyewu nag ko nanguloon ay maam di ko nanguloon ay baayam di ko nanguloon ay maamam wa tabaraka allahu lu muy sant sant Mbàkke yëpp gis nañu masaan di ñëw xale fi jaar day takk di gëm neenam tarbiyewu wala ab taalibe te taalibe boobu moom lay doxee ba nii nii wa tabaraka allahu yal na yàlla taxaw ko Riyadou Sow moo noonu la ñuy seet seen chef bay bay Bécaye Bécaye Bécaye Kounta nekk xalifa général bi Yaasan Fati di ko ñaanal moom it yàlla yàlla doon taxaw ko yàlla doon sàmm ko di nuyu nag sama sëriñ bi nga xam tippoo di bay Bécaye Kounta di ko ñaanal yàlla moom it yàlla yàlla taxaw ko yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla dëgëral ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mboolem xalifa yi nga xam ne ci kaw suuf bàyyiwuñu kenn dem dama Kaolack dama Leona dama Medina Baye fa tabarakallahu bàyyiwuñu fenn dama Daaka di leen ñaanal ñu fi ne yal na yàlla doon xëcc seeni fan ñu faatu yal na yàlla doon leen yërëm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu di ñaanal réew mi nag kilifa aada yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla jëlee ci bopp réew mi yal na yàlla doon leen dëgëral yal na yàlla doon leen sàmm inondation bi métti na fa tabarakallahu ndox mi bare na bu boobu amagul woon ñu ngi doon yóbbu di ñaan yàlla mu mu wàcc tey bu mu wàccee tey ñëpp ñu yuuxu tey ñëpp ñu naan doy na doy na doy na fa tabarakallahu na coow yi bare na ñoo koy dàkkale rek njiit lu bon fa tabarakallahu jàppale li ñu war a def ci société bi defuñu ko société bi te nit loo war li nga war a def société bi boo xam société bi rek day day day day répété wu ci yow fa tabarakallahu mu mel ni ko suñu njiit yi war nañu xoolaat seen bopp waaw suñu kilifa yi war nañu xoolaat seen bopp waaw suñuy njiit yi ñi nga xam ne ne yàlla jiital tey doomu aadama du jiite boppam mais moo koy jiital ci kanamu nit kon bu leen doomu aadama yi tamit yaakaare rek ba yàlla jël yaakaar boobu teg fa loo xam tey teg leen suñu kanam war ngeen a xoolal seen comportement nga xool tey tey constaté suñu président yi wala suñu ministres yi ñoo xam ni seen compte yi ay milliards moo ciy nekk nga xool population bi am problème mu ndox am problème mu courant xoolal inondation bu ndox kër jàmm te tey constaté moom tey sa compte nga ne nga ne yow yéene nga su sëriñ bi jàmm dañuy wax ne Seydina Muhammad dafa ne sayyidul xawmi xaadimuhum nee na sang mbindeef yi mooy ki nga xam ne day liggéey jaam yi yow nga préparé wax fan leen ma maire wala fan leen ma député wala fan leen ma ministre ma liggéey nga doon seen jàmm keroog war la soo paree nga nekk buur suñu kaw jël sa yëpp di ñu ko dóor kon nga xam ni kon war nañu xoolal seen comportement société bi dem ni ñuy faw war nañ ko xoolal soo xoolee tey ndox mi ñu mu bëree macha allah xoolal tey nga xool mais yoo xam ne du ñu mën a togg du ñu mën ci ci ndox yi la ñuy nekk te day ko teel seen oto yi li muy xëy di jël wala gasoil sa xamoon lu mu doy fas yéene seen desneer ñooñu ñëpp di dawal a wàcc ba yëpp te yëpp yu koy bàyyi te yàlla dafa ni alal ju jox dimbali ci jaam yi waaye nga bàyyi jaam yi di sonn di ñu waxee nga fëgg dënn saaga waate xasaate jël ay milliards et milliards def sa compte te boo dee fi nga koy bàyyi wala président fi jaaree bu fi mu dee julli di woon président du Sénégal Senghor ba muy dem moo ko topp amul dara topp ko président étudiant yi amul kenn ku ci dee ba yóbbaale dara continuer ngeen fii def sol koo solo solo solo ba mu fees ku ci dee fii nga koy bàyyi ku ci dee fii nga koy bàyyi ñu ciy def lu leen neex lu neexul yàlla yàlla di rëq sa ndigg waaw fi ay kër yu yor gis benn ministre boo xam wala benn député boo xam wala benn maire boo xam dafay am ay cinquante kër loolu rek est-ce ce que loolu c'est normal wala benn kilifa diine bu ñu wër moom ay cinquante kër nga xool fii say taalibe am problème mu fay lu yaas waaw say am problème mu fay lu yaas ñu leen di génne nga fi am kilifa diine wala nga fi kilifa boo xam ne ci réew mi rek nga am ay quarante kër fay kër yoo xam ne yaa ko tëj imagine loolu ñu ne ñun Seydina Mohamed ay jullit lañu wala Seydina Mohamed na du jullit du jullit du jullit ba mu ne ki mën lekk ba suur kër di ko nuyu di bu xatal doomu aadama yi di leen jaay doole te nga ni jullit nga sa bokk jullit am problème fay nuyaas te doo ko si jàppale kon nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu comportement xam ne ala kulli xaalin bis dina ñëw yàlla yebal malaaka bi fa iza balaqat al-hulqum wa antum hiina'izin tunzarun wa nahnu aqrabu ilayhi walakin laa tubsiruun dana su ndox dootul dugg ndox dootul génn dama koy téye lu ñu dugal ko génn waat ceeb dootul dugg nee nañ dafa bi tiim la lenn rek la ñu mën muñ doom xam ne tey jeex nga tak tak tak tak tak ci kaw suuf kon fa tabarakallahu yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla ñu yàlla dem wutal ay kilifa yu baax wutal ñu ay njiit yu baax Sénégal nag ëllëgul defar waaye ñuy jiit yi ñoo xamul fu ñu war a jaar nit nag fa tabarakallahu boo jaaree foo war a jaar da ngay jaar ci mboy kon fa tabarakallahu yàlla ñu yàlla taxaw yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla teel boppam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu ngeen ne seen émission bi al ilm wa taalim ànd ak Oustaz Ibrahima Diallo fii ci Salam Vision seen YouTube bi ne ci bànnee bi di nuyu fa tabarakallahu déjà di ko ñaan yàlla yàlla doon guddal faram yàlla doon sàmm ko yàlla doon wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni fa tabarakallahu taala wax ji bari na ci réseaux sociaux yi di ñaa ngi wax di jëbakataan di yuux mais kilifa waxuma sax kilifa mais Seydina Muhammad dafa ne nit boo dee bay génne sa génne da nga ciy génne loo xam ne mënoo ko waaw ah. ah, rawatina nga ne koo xam ne ay lu mu dee dee dee dee dee dee dee dee vingt personnes moom la jël lu mu dee dee xam naa ëpp na sama vingt personnes waaye nag ku amul kilifa dina doon sa kilifa sama sëriñ monsieur Abdou Aziz Dabakh daan la wax naan bu ma amul kilifa dinaa dem ba ca àll ba jël sama buum takku ci benn bant jël bant bi sama kilifa kon nit da ngay am kilifa nit da ngay am yar. nit da ngay am worma nit da ngay am yar nit da ngay am worma nit da ngay respecté doomu aadama yi doomu aadama benn bi yaa moom benn bi si diggante sa borom benn bi si diggante bi waaw dof rek maanaam faaloo mu nii waaw Serigne Cheikh ne ne ku taxaw mu nii a tiital waaw kooku dañ la war nit ki da sa bopp wormaal sa bopp am yar si sa waxin am yar sa doxin am yar sa jëfin mais sa waxin mu yoroo sa jëfin yoroo saa yoo waxee dañuy jël seen loxo taf seen gémmiñ ñu ni xam-xam nga kooku war ngaa xool sa nit da ngay am worma da ngay am worma da ngay am respect waaw wa zeynul fata baada ma tuqa adabun wa ilmun wa islahun lahi yëddu sama sëriñ maa nee bi xormatin xawasa ci worma lañu àgg waaw waaye nag ci ñàkk worma ci ngay dekkee koo ci kër yàlla doo fa yegg kon nit dafay am worma am na yoo xam nag nit du di ci tontu ñii wax jëm fii ñii amul chance nit ki li seen i waxoon ni waare di matu ko ci fexeel ba baax ba ku la xool baax waaw mais nag soxla naa nit ñi baax leen mais yow baaxal ba ku la baax waaw nee na baaxal ba ku la xool baax soxla naa nit ñi baax leen baax mais yow baaxal ba ku la xool baax kon ni dana toll foo xam ne ci réew mi bu la nit ñi di bàyyi xel li Seydina Muhammad wax ne fal yaqul bi xayrin aw liyasmut waaye nag micro drogue la. waaw dana la waxloo ba dañu waxoon ne ñetti façon wax am wax ba yeew nit ñi wala nga wax ba yeew sa bopp wala wax ba nit ñi yeew la waaw léegi nag Sénégal léegi ñaari am wax ba yeew sa bopp ak wax ba yeew ak wax ba nit ñi yeew la waaw léegi kenn waxatul léegi ba yeew nit ñi da ngay wax ba yeew sa bopp ba demee ba toog nga ne man nii lan ko mën a waxee wala nga wax ba nit ñi jéppi la ni waa kii nit la waaye waxatoo ba yeew nit ñi ba li nga bëggoon ci nit ñi am ko kon fa tabaraka allahu li si hajmaali waxoon innaka laa tadri bi annaka laa tadri wa innaka laa tadri dafa bare ñoo xam ne fii de ñu ngi ci réew ñu xamuñu te xamuñu ni xamuñu te nit ñi woow ñu leen xamal leen ne leen yéen waaw te jàpp na ni xam nañ innaka laa tadri bi annaka laa tadri wa innaka laa tadri waaw li li oustaz ma séddee ko doon wax naan réew mi léegi gudd làmmiñ moo fi am waaye du xam-xam waaw gudd làmmiñ moo fi ne waaye du xam-xam ku la gën a rëy làmmiñ gën laa mën a wax yoo xam ne li sëñ Abdou Aziz Al mi waxoon ni doomu soxna yi ci masala la daan jamantee ci masala la daan waxtaane waaye du xasante ka tamante dëmm waaw mais nga toog sa plateau lu la waaye neex nga wax lu la neex nga wax nga jàppale dara du la si fekk la si kenn doo mën a jig muy borom subhanahu wa taala keneen ku dul yàlla boo defee dara dara fekk la ci waaw day feeñ rek wala mu nëbb waaye yàlla rek moo yeyoo yàlla rek moo aadoo yàlla rek moo am kàttan def lu ko neex dara du ci fekk waaye ko sa plateau télé wax lu la neex nga jàppale dara du ci fekk ndax nga sa bopp kon yéen yàlla xëy ci boppam yàlla yàlla teel boppam yàlla yàlla sàmmal boppam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jégalu wax ñëpp di baal wax ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla muy borom jàmm ku mu jàmm nga jàmm yàlla ñu yàlla jàmmal wa tabaraka Allah daal mukk du ñu suñu sëriñ boobu sëriñ Babacar Serigne Moustapha Sy responsable moo tax fi agent Aba wal Ajali dama fàtte mu ko Serigne Ousmane Sy Dabakh waaye dama fàtte Imam di nuyu tabarakallahu euh, fañu Moussa Dia yëpp di leen ziar di leen ñaanal ñaan borom subhanahu wa taala ñaan yàlla di waajal tabarakallahu li nga xam ne mooy màggal bi di ñaan yàlla rek yeneen ci yàlla yóbbu jàmm dal suñu jàmm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa seeni màggali ñaan yàlla borom subhanahu wa taala ni ko Serigne defe woon rek ñaan yàlla feebar yi wàññeeku dee bi wàññeeku te tabarakallahu bu ñu ko defee ba léegi yaakaar naa ne lu bare wàññeeku ni ci réew mi ci li nga xam ne nit ñi ñoo ko duñu yuux ñu ko doon jàmbat ñoo ngi jéego ñëpp di baal wax ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa